dali nag jàmm tey li ñuy waxtaanee mooy surdité ñu koy wax tëx màndargam ci nit ki mooy jafe-jafe ci dégg-dégg professeur Issa Cheikh Ndiaye jiite service ORL bu hôpital Fann di xamle ni bëri na li mën a indi feebaru tëx. tëx moom euh, bëri na li koy joxe mën na mën nga ko judwaale mun na nekk loo xam ne da nga koy dañ koy dañ koy doon mën na nekk loo xam ne également ay infection lu mel ni méningite moo koy andi euh, wala ay traumatisme Euh, loolu yëpp su dajee nag euh, da ci am nopp ñetti ñetti pàcc la euh, su dee tëx mi daa nekk bi li nga xam ne mooy tëx boo xam ne daa daa daa nekk si li ngi njëkk si nopp bi muy muy tympan bi muy muy muy pavillon bi ba ci digg bi foofu mën nañ leen opérer en mais su demee nag boo laar boo boo laal li nga xam ne mooy sidit ba <coughs> muy nerf ba day commencer am ay jafe-jafe foofu appareillage moo ciy war te plus solitude bi gën a am am gën a gën a profonde plus nag nga am ay ay ay jafe-jafe pour appareillage boo xam ne dana mën a tax nit ki dëgg loolu a tax euh, lu ñu naan implantation cochléaire di mbir moo xam ne même su dee nit ki xale bi euh, daa tëx nekk tëx boo xam ne daal lool daal daal si sidit ba mu nekk tëx bu jéggi dayoo suñ ko defee la implantation cochléaire dana dana dana dana dëgg te dana nekk koo xam ne day dugg si biir société bi di fee impôt di liggéey comme Euh, loolu nag appel bu rek mooy vraiment état bi jàpp ci bu xele yooyu ñu seen programme boo xam ne euh, dans un premier temps dans un premier temps si on mettait par exemple à la disposition des Sénégalais sans un plan par an dans un premier temps sans un plan par an petit à petit dana dama permettre ba xele yu bari bari mën cee mën cee jaar si ay sélection yoo xam ne dañ koy def Euh, donc euh, loolu mooy mbirum sidit bi. yan possibilité moo am ci traitement bi nga xam ne moom la ñu war a jagleel euh, ñi nga xam ne dañuy dund ak feebaru tër. am na si ñoo xam ne su dee maanaam jël nañ leen bu ñu amee ñaar at bu ci ñetti ak ñu opéré leen. fekk nag dégguñ dara soo leen bàyyee dañu muuma su boobaa vraiment mën nañ def benn opération boo xam ne tey dana leen permettre. ñu fa jógee dem jàngi. nekk président de la république ministre journaliste ingénieur. Euh, professeur d'université comme ñun ñii ñëpp. Euh, loolu mooy li nga xam ne andi nañ ko fi depuis quelques années. ba pare nañ fi ay xale yoo xam ne tey euh, ñu ngi kiy wax am na ñoo xam ne ñu ngi am une bonne scolarité mbir mi nag mooy implant bi daa xaw a cher rek mais 10 millions cherul te looloo tax may lancé benn appel ministère de tutelle bi muy ministère de la santé ak bépp mbootaay boo xam ne nekk na Sénégal bugg a jàppale xale yooyu suñu rapproché rapproché ak ñun moo lañ leen. Euh, moom lañ leen euh, aiguillonné ba ba ñu jàppale xele yooyu ba nga xam ne dañ leen di opéré fii lañ leen di opéré du ñu leen yóbbu France déedéet fii lañ leen di opéré si biir si biir service bi ak yeneen service yi nekk.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 Bonjour chers auditeurs, on s'intéresse aujourd'hui à la surdité, une perte d'acuité auditive qui se manifeste par une diminution de la capacité à percevoir les sons. Selon le professeur Issa Cherniaï, chef du service ORL de FAN, les causes sont multiples et variées. multifactoriel. Euh, il y a des surdités qui sont héréditaires, oui, ça existe. Euh, mais il y a des surdités qui sont liées à des infections comme la méningite, euh, traumatisme, une tumeur euh, et euh, à des maladies dégénératives également. C'est des maladies... Euh, euh, il y a des surdités qui sont juste liées à un bouchon de serre humaine. Un bouchon. Si on nettoie les oreilles, c'est fini, on entend. mais quand elle est profonde, c'est-à-dire quand le handicap est, est réel et profond, et que le malade a des problèmes vraiment d'écoute au plan social et gêné au niveau social, si c'est ton élève au plan de la scolarité il a des problèmes, à ce niveau-là, il faut faire quelque chose. Quels sont alors les traitements possibles selon le type de surdité Il y a des possibilités sur le plan chirurgical. Si euh, la surdité est en rapport avec une maladie de la partie moyenne de l'oreille, on peut faire une intervention chirurgicale. Mais quand c'est au niveau du nerf, un peu plus profond, et que la surdité est vraiment très sévère, à ce moment-là, c'est la technologie nouvelle, l'implantation cochléaire, euh, qu'il faut tenter et ça des, ça, ça donne des réussites euh, vraiment extraordinaires. Les appareils conventionnels, pour une surdité euh, moyenne euh, qui n'est pas très handicapante, va tourner autour de 500 000, 1 million. Mais quand la surdité est vraiment profonde, et que si c'est ton enfant par exemple, il faut l'opérer très tôt, si rien n'est fait, il sera sourd-muet, évidemment, c'est les enfants qui vont dans ces écoles-là. Il est possible pour ces enfants-là de les opérer avec un implant cochléaire qui coûte 10 millions de francs CFA ici, parce qu'on a négocié les prix. Mais évidemment, euh, ce n'est pas à la portée de la bourse de tous les Sénégalais, vous allez me dire. Le problème est réel. C'est à cause de cela que je lance encore une fois, le ministère de la Santé doit s'intéresser à ce que nous faisons dans la prise en charge de la sécurité et les différentes GNG euh, et les mécènes également doivent aider ces Sénégalais malentendants, sourds profonds,